ñun nag dañoo kontaan trop ñu fekkee jotaay bu mel nii li tax ñu kontaan mooy lan mooy man li may ooyee du concret man dama jàpp ni mooy li chinois di wax balaa nga may jox ma lekk nga jàngal ma ni ñuy nappee balaa nga may jox jën nga jàngal ma ni ñuy nappee moom la ñu defar cinquante jeunes yi suñu quartier bi moo tax ñoom tey mën nañu am yaakaar ni mën nañu léegi nag balaa ñuy toog ñu leen di jox bés bu nekk jën moo tax ma ne ça c'est du c'est du concret te day ñëw rek yokk ci yu bëri yi monsieur Tambédou di def ci quartier bi moo tax mënuñu lenn lu dul gërëm ko ci euh, sant ko ci ñaanal ko tamit yàlla gën ko dooleel yàlla fay ko tamit fay bi gën fii ci kaw suuf ak bésum pénc waaw léegi nag

su ngeen jotee seen diplôme bu leen tëdd nelaw déposé leen dëgg waaye su ngeen déposé le temps comme ni ñu koy waxee yàlla ñëw ah yàlla yàlla béy sa tool yéen tamit euh, comme on le dit souvent euh, l'avenir appartient aux aux audacieux soyez audacieuse et audacieux osez message boobu daal laa bëggoon lancé te fan laa yem kontaan naa trop di naan asalaamaaleykum wa rahmatullah